salaamaaleykum mbokk yi déwénati leen ñu ñëw ak yéen li nar a gën a fës ci xibaar yi. li ci nar a gën a fës xanaa rek ñu àdduwaat ci li nga xamante ne mooy julli yi ñu daal amal ci penc yi ci gox yu fasantikoo yi euh, képp ku nekk it la nga xamante ne moom moo ko daal di sobal rawatina ci xew-xewu jamono yi noonee la ñu daal di yëkkati la nga xamante ne moo jëm ci wàllub seen xutba yi imaam yi ak naim yi fa di nekk jëbgal leel ko ñi nga xamante ne moom mooy mboole seen julliti ngir rek ñu daal di gën a defaraat lépp lu jëm ci wàllub togg gi ci penc bi loole dinañ ko farañ fàcce dem ci yeneen gox yu fasantikoo ci biir réew mi ci kanam tuuti ñu daal ko yaatal ànd ceeg kile di Alassane Thioune Birama Ndiaye déwénati leen sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas yu ñu lëkkaloo tey nekk uh, alxemes yemboo ko fukki fan ak ñett ci weeru mai atum ñaaru junni ak ñaar fukk ak benn xibaar yi ñu doore ko niñ leen ko waxee ci lu jëm ci wàllu wàllub uh, jullik uh, korité niñ ko amalee ci penc yu ne lu jëm ci wàllub coxor siis ak yéeti jëf jëfu mala loole lenn waralu ko lu dul koppar gi nga xamante ne nag dañ ko daal di tëgg gët jiital ko ci lépp lu ñuy daal di yëngu ak yët ci wàllu po xelop nit ñi loole ki ko xamle di imam ratib bu grande mosquée bu nekk ca ndar mi nga xamante ne nag moom moo daal di jiite julli korité bi nekk tey ji di imam Cheikh Tidiane Diallo jàpp ne nag ngir ñu daal di ci andi saafara faw ñu daal di sàmmoon teg xar baaxu jàngale euh, alxuraanu karim comme ni ko yonent bi daan defee ñu teewlu ko ci jokkoo mag yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli sa yonent bi di wax ni réew li koy doxal mooy jikko réew bu amul jikko c'est la débandade il faut am jikko yoo xam ne daf caa tegu ñu jox cër suñu ay kilifay yi jox leen cër yàlla lañ def kilifa ñu jox leen cër en ce sens waaye rek nii jamono tëddee ku gis xam ni alquran ji si boppam nan ko waroon jàppe jàppe wuñ ko ndax yeneen bi Aïcha ban ko laajee lan moo doon jikko yonent bi elle a été très laconique et sub et comment dire succincte dafa nekkoon ne alxuraan yuy dox ci biir ni lu yàll digle lu alxuraan digle daa ca fekk yonent bi lu mu tere doo ko ca fekk loolu la mais ñoo ngi koy jàng baax na mais jikko ji moo des quoi moo taxit war nañu delloowaat alxuraan te na mu meloon ñu koy jëfe defe naa ni loolu rek mooy solution bi la seule thérapie ki vaille mooy nañu delloowaat alxuraan te na mu meloon naka yonent bi daan doxale ñu doxale ko di eh, sant yàlla monsieur le maire bii nga xam ni wax dëgg yàlla in œuvre inlassablement pour le bon devenir de Saint-Louis ku nekk di liggéey nag ñaanal ka yàlla mu àgg mu jëm a gën bu fi keneen nekkoon itam du def lu mu gën ki fi nekk dañuy wax ni baaxul ak ki ñëwagul man dañuy wax ki fi nekk baaxul waaye ki fi ki ak ki dem la ñuy wax ni baax na loolu moo moo doy waar ci àdduna nit ki li muy def danga kaan nangul sans soit peu li muy def nga nangul koko ak maandu ndax moom tamit mën sawar dem waaye buy def rek nga nga nga koy découragé bu yàggee mu taxaw ndax ay nit lañu. di kaddu imam Cheikh Tidiane Diallo mi nekk imam ratib bu nekk foofee ca Ndar bàyyeekoo Ndar ñëw fii ci Tivaouane foofee itam jàkkaay El Hadj Malick ak bu Serigne Babacar Sy ñoom itam daal di julli li leen di. Euh, jullik korité bi le ndaxte nag xam ngeen ne lu jëm ci wàllu mbas mi bu mu doore ba nega ni ginnaaw bi ñu leen tëjee nag xalifa ba daldiwul joxe ndigal ngir rek ñu daldi leen tijji wante teewul ci yeneen diiwaan yooyu yu demee ni ki kër seex ak sala dërgan foofe mbokk bu jullit yi fa daldi nag rawatina murit yi ñoom daldi nañ fa julli Babacar Sow korite atum 2021 ca Tiwaawan jumaay Seydi Aj Malick si ak jumaak Serigne Babacar si ubbiwuñu seeni bunt te leen warlu ko lu dul coronavirus ci mbas moo xam ni ba mu tàmbalee ba léegi ginnaaw ba nguurug Sénégal jëlee ndogal nii daal na tëj mboole seen bërëb yi nga xamee ni doomu aadama yi daañu fa daje donte sax feebar bi deltu na ginnaaw waaye day kilifa yi ngànk ndogali ci dëkk bu sell bi dañu ñaan mbokk jullit yi nañu ko daan defee ba mbas mi tàmbalee ba léegi ku nekk na julee ji këram Aydil Fitre julli korite at mi ca jumaay murit kër Cheikh Awa Balla Mbacke ca Tivaouane foofee daal dinañu julli ba fukki waxtu jotee la imaam ratib bi di Serigne Thierno Mbacke ginnaaw bu mu jiitee julli gi ba pare dellu siwaat ci solo bi nga xamee ni asaka am na ko nuyu Serigne Babacar Sy Mansour ñaan suñu borom yàggal ko fi te may ko def mu doole jabot maam Alaaji Malik di fàttali suñu xam ne képp nga ko nga ko war a def gannaaw loolu nag asaka day sellal jëf di sellal taxoon doomu aadama kon loolu ragal yàlla indi moom ca Touba Sall Dërgën nekk ca banlieue Tivaouane foofee tubaam di dellu siwaat ci wax ju ñaaw ju dëppawul ak dëgg di santaani itam jubal ak njàngum alxuraan imaam as mbàkke ñi nga xam dañoo jub ëllëg suñu borom da leen di taxe ñi nga xam ne mooy bi ci topp mooy naafeq yi ñi nga xam ne li ñuy wax lépp maanaam dañuy jàpp ni dañoo nekk ci dëgg fekk na booba li ñuy wax lépp naafeq mooy koo xam ne bu toogee ceew li mu lay wax ak la muy jëfi du bokk képp koo xamante ni bëgg nga ëllëg yomal xam nga texe rek na nga faral di jàng alxuraan foofee ginnaaw kàddu ya nga xamante ne nag ki la di imam Babacar Ndiour daal dina ko yëkki foofee euh, ca jàkkay Moussanté ki la di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wàllub euh, numérique di ba Diatara foofee la daal di julee jàpp ne nag dina fexe kàddu ya nga xamante ne xëy euh, imam ba daal dina ko yëkki rawatina ci xëyub ndaw ñi ñu fexe rek nguurub Sénégal gën ca taxaw ba ndaw yooyu dal di am ci lu ñu suturlu ba Diatara ñu teewlu ko ak Ndaw donc joxe na ci ay orientation yu leer ren rek ci deux mille vingt et bi nee na nañu mobiliser cent cinquante milliards quatre vingt milliards dañ koy dugal ci mbiru emploi formel mooy emplois yoo xam ne dañ lay fay par weer loolu dinañ ci jël juróom benn fukki junni ak juróomi jeune mooy soixante cinq mille emplois te président nee nañ ko décentraliser mooy département bu ne en fonction population bi nga am ci lañ lay jox sa quota. ndaw ñi kon nañu préparé wu ci seen département yi ci seen communes yi préparé dossiers yi nga xam ni moom la ñu bëgg déposé ji muy ci préfecture yi muy ci mairie yi muy ci pôle emploi yi ci maison de la jeunesse yi yëpp pour euh, wane ñu am nañ yéene bëgg nañ liggéey kon ndaw ñi il faut ñu sensibiliser leen beneen bi mooy président de la république décidé na dugal soixante-dix milliards mooy juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki milliards ci mbiru financement jeunes yi financement yooyu tamit ci département yi lañ koy yóbbu ak ci communes yi kon ngeen na ndaw Sénégal am yaakaar ndaw Sénégal gën a am yaakaar ci président de la république ak ci gouvernement bi gën a am yaakaar ci seen avenir ñu takk seen dëgg nag liggéey ndax yooyu yëpp mën na ko président de la mën na ko mobiliser te ndaw ñi dañu mobiliser wu. kon ndaw ñi nañ mobiliser wu nañu engagé wu nañ dem ci préfecture yi nañ dem ci mairie yi nañ dem ci conseil départementaux yi nañ dem ci euh, CDEPS yi nañ dem ci maison de espace Sénégal service yi ndax pôle emploi bi foofu lay nekk. donc loolu lépp pour déposer seen dossier ñu encadrer leen wax leen yoon bi nga xam ne fa la moom la président la tracé pour jeune bu ne am loo mën a jàpp loo mën a suturlu ca njaarim itam ñoom niki tey jii daal dinañu julli la ñu sàkku rek bokk na ci itam ñu daal di fexe ànd bokk maase dimbalante jàppalante noonu itam lañu ñu daal di yëkkee kàddu jëmale ko ci nguurub Sénégal ngi rek mu daal di leen a wàllu ci fànn boobule Adama Ndiaye. jullik ñaari rakka bu laydel fitre di korité amal nañ ko ci juma ju mag ji nekk Medinatul te kii di Serigne fàllu Bassirou Mbacké daldi koy jiite ci teewaayu ay taalibe yu murit yu bari ci xutbaam ñaan ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi ñu gën a fonk seen diine fonk seen tarixa ndax jàpp na ne ginnaaw alxuraan ak sunna seen tarixa la jox bopp. ginnaaw alxuraan ak sunna mooy sunu lépp ñu fas yéene jàpp parce que fas ko yéene rafetal fas yéene dëggal sunuy xol nu ànd na door boole sunuy xol boole sunuy jëf jënd ko ci seen bi ngir yàlla lii bu ñu ko defee jafe-jafe yi ak lu mu bari bari dañ koy jéggi rek dem ñu ñaan sunu borom mu dellu mu dolli ñu ay xéewal dolli ñu ay gëneel ba ba nga xam ne mas mi nga xam ne moom lañ fi tudd mu jeex ci tàkk ba bañ di ko fàttaliku sunu borom sunu borom wutal ñu ci ay ngëneel ak xéewal ñu ngi ko fàtteloo jërë ngeen jëf. ci terrain sapeur Serigne Habib Kandji moom moo jiite ñaari rakk yi nekk foofu ñaan na nag njiitu réew mi ci boppam mu gën a jàppale njaareem nga xamante ne askan wi lot nañ lool. ba sax nee na sax ñi nga xamante ne ñoo ko gën a jege rek duñ ko wax dëgg-dëgg métit wi nga xamante ne moom la askanu bawol di jànkonteel imam bu ci Cerno Kanji ñaan ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi ak jullit yi ñu faral di yokk li nga xamante ne mooy ndimbalante bi war diggante askan wi ñaan na leen nag ñu ñaan jàmm ak salaam ci réew mi ndax am na dëkk ya nga xamante ne jamono yi ñu ngi ci guerre Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ndimbalante boobee la ki fi teewal xalif général des Mourides daal yëkk niki tey ji ginnaaw bi imam daal di defee lile di xutbam moom Mbackiyou Faye noone la ko daal di xamle ne faw nit ñi gën a jàppalante fexe itam képp ka nga xamante ne euh, loxoom jotutu ginnaaw ñu fexe ko taxaw donte ne sax euh, gis na ne fii ci senegal yi itam amoon na fi ay yëngu-yëngu ñu daal di génn wante lépp daldi di nañ fexe ba euh, daal di ci andi saafara te loole mooy Sénégal. Sénégal moom Mbackiou Faye ñu teewlu ko ak Amadou Moustapha Dia nañ xam ni kon réew mii Cheikhul Khadim moo ko garantir événement yi fi jàll bu yàggul rek war ngeen a xam ni loola am na ci firnde boo xam ni bi sëtam bi jógee wax ak ñi mu ko seqal ak ñi seq réew mi yëpp gis ngeen ni jàmm ji delloo si ci réew mi kon bu Serigne Touba bindoon bu yàgg a yàgg yàgg ëpp na téeméeri at ñu sécuriser na réew mi war na ñoo xam ni kon jàmm réew mi Serigne Touba moo ko yor kon nañ ko ci sàkku fu ñu toll e, yëngu-yëngu nag du am du ñàkk am ndaxte dégg nga sax wolof di wax làmmiñ ak gémmiñ ak làmmiñ làmmiñ ak bëñ ñoo dëkk te bés bu ne ñu jote te it soobul boroom day am loo xam ne bii rek c'est des événements cycliques ou bien des événements yoo xam ne yii rek day faral di am mooy rythmer la vie de l'humanité ba nga xam ne bii loolu rek a am waaye nañ rafet njort ni réew mi du yàqu. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. kenn waru ko yàq. kenn amul droit ni damay yàq réew mi kenn amul ci droit ndaxte réew mi daa am ci ay yoxo yu mu jóge woon ci mag ñu baax a baax moo xam magi diine la moo xam magi aada la moo xam ay ay yi ay homme politique lañu ñu reyante xeex saytu réew mi ba am fu ñu teg réew mi ba indi ko ba ñu jot ci. ba man ci ñun di ci jouir kon war nañoo mën a fexe ñu garder réew mi jàpp ko nañ ko jàppee ba ñu it ñu teg ko ci yeneen i loxo yoo xam ni bu ëllëgeek si biir ñu ni mag ñi kat lii lañ ñu baytaloon ñoom it ñu góor góorlu ba batale ko ñeneen kon loolu day loo xam ne lii ñun ñëpp la war man la war ak ñun ñëpp ñu nga xam ne ñoo bokk réew mi